ana ñu woon du fi am ana ñu waxoon ne mënta am waaye dañoo desee xam borom mbaar mi waaye bu ñu xamoon borom mbaar mi mooy kan ah duñ ne du fi am xalifatul xaaji muhammad ibn xaaji abdullah ibn muhammad wallahi buñ ko xamoon passé nañ fii mais malheureusement xamuñ ko xam nga sëñ xaadi mu baax mi dafa taxaw wax fii ne maam xalifa mi toog fii dàq picc yi sa fuuta wallahi buñ ko xamoon mu dàqal ñu suñ yooyu waaye ziyaara ren bii nu ko sëriñ bi Cheikh Ahmad Tijaan waxee billaahi ziyaara baatin la boo tax na ñun nañ sant yàlla ñun ñi nga xam ne yàlla baaxee nañu ñu teewoo ziyaara bi nañ waxaat alhamdulillahi rabbil alamin waaw kay jërë ngeen jëf ñu ngi sant yàlla encore bu baax ndax ziyaara bi teq-teq yi bari na gàllankoor yi bari na waaye lu baax ala kulli xaalin dafay jafe lu baax lu boo laalee dara mu yomb rekk ba ko xamal na bu loolu baaxut te inna maa al usri yusron ba tax na na ma leen ko waxee yéen de yéen ñu ñëw ñuy amoon yéen a ñëw te am gàllankoor ñooñu da raw waaye de cam état du senegal cam état du Sénégal cam état du Sénégal dañu jàpp suñu ziyaara ñoom ànduñu ci waaye damay wax ni état bi cuune na cuune goo xam ne bu fekkente ne yow danga def benn mbir dafay laaj évaluation boo demee ak diir nga xool ndax lii dox na wala doxut daaw fomm nañ suñu ziyaara bi kaa yi ñu amoon daaw ak yu ñu am ren boo ko doon boo ko doon xayma fukkam am na fi ren kon xam ne kon stratégie bu ñu tegoon baaxul te ñu xañ xañ nañ ñu suñu ziyaara te ziyaara mooy ziyaada kon ñu xañ nañu suñu ziyaada xalifa bi bi nga xam ne damay wax ne kuñ dee nga ñeme te xalifa bi dañ koo dee mu taxaw ne ala kulli xaalin ziyaara bi dina ko amal ci nii wala ci nële njaboot gi am na ñoo xam ne seytaane dugg na leen waaye ñi ci oyof la seytaane këf naaw ak ñoom waaye ñi nga xam ne seen fas-fas dëgër na ci maam Khalifa Niass ala kulli xaal ñoom ñoo taxaw ne ziyaara bi danañ ko amal alxaqu yaalu wala yula alayhi ba tax na dama wax ne état du Sénégal ñoom amuñ chance yàlla xam ne buñ jàppoon ci ziyaara bi def ci lañ ca waroon a def rek raw nañ waaye dafa fekk ne Omar toogal toogal yégal jërëjëf Omar toogal da xool mbooloo mu toll nii soo ko din lim ci ay junne yàlla rek a xam nu mu toll amul benn takk der boo xam ne rax na ci mbooloo mi te lépp jag na waaye jaaraama maam xalifa ñes waay dañoo yaakaaroon ne buñ téyee seen loxo dara du dem waaye boobu dañoo xamul góor gi li ñuy faral di wax naan góor gi maanaam dernière minute la gën a mën wallaay dëgg la état daal lu may wax si ñoom ñàkk nañ chance waaye nag sant nañ yàlla bu baax si ñaan ak mag ñu baax ñële tàmbali woon nañ ko di ko doxal di ci wax di ci jëf te ziyaara bi lu ci gën a yéeme amul benn réunion boo xam ne def nañ ko ngir waxtaanee dara si ziyaara bi man loolu bokk na ci lu ma gën a yéem ndax ziyaara yi paase lu mu gàtt-gàtt danañ def vingt wala trente réunion pour wax ci ziara bi ni ñu koy doxalee bi amul benn réunion boo xam ne def nañ ko ci ziara pour wax ne nii la ñuy def wala nii la def xanaa kay woote téléphone ne diw defal ma lii defal ma lii mu def mu gën a jàkk te ya nga xam ne daan nañ réunion ah ngeen xam ne lii du yëfi caaxaana ah. wallahi dëgg la kër ak baatin la ni nga ko waxee noonu la kër gi nag seytaane daf fee dugg jaxase ko ndax yàlla dafa dogal suñu baay Ahmad Khalifa dañoo toogoon fii àddina bi yépp di ko dégg mu taxaw ne fekk lu jiitu loolu xalifa bi moo ne dafa bëgg sant Macky Sall mu jëndal ko tànt ñu def ko fii ci ne Niassène ginnaaw ba nga xam ne alaaji ibrahima mébatoon na ko radiallahu anhu yàlla dogal la mu dogal ahmad xalifa jóg ci jàmbaar ga ak ca mbaax ga ne ko ñun soxlawuñ tàntu Macky sàll ñun tàntu xalifa ñas lañ soxla te tàntu xalifa ñas boobu ràngoo naa ko laajuma ci kenn benn dërëm lépp dinaa ko def ba mat def na ko waaye mat googu nag des na duwal na ci xaalisam lim ci def ci xaalisam mat na 82 millions lépp suma loxo bii la ko teg man la yónni woon ma dem Chine defal ko commande bi indil ko ko fii ñu samp ko fii ñëpp bég ñëpp kontaan waaye seytaane bëggul lu baax seytaane nag bu bëgg lu baax yi du ko bëggale yàlla dogal seytaane dugg na ko mu taxaw ne tànt ba mu joxoon xalifa ñas nanguwaat na ko muy wax ju xeebu nag sama baay la nag waaye dama jéggal waaye wax ju xeebu la nag am na lim ci def ci diggante bi loolu duma ci wax ndax loolu jarul wax itam waaye dama bëgg buñ ziyaara tey ëllëg di dimanche tant bi danañ ko démonté delloo ko boroom ndax maam xalifa moomatul tant bi tàccu rek bëgguma tàccu rek wax dinaa ci ñëw nag ay tàccu rek doo yut de ndax dañoo toll ci jamonoy jëf waaye tolluwuñ ci jamonoy wax te ku jëf yàlla xam na ku jëfu ci yàlla xam na sama baay alxaaji ibrahima daan wax ne nag yàlla du fay mukk wax bàyyi jëf comme tànt bii maam xalifa moomatu ko waay waay waay waay saari'u ila magfiratin min rabbikum taalibe yi nag cette si ci yéen laay waxal lépp li fi samp bu ñu ne lii lum sant rek ñu ne ñas loolu nag gàccale si ñun taalibe ma bëgg balaa ñoo génn tànt bii na cent million yi mat xam naa dana jaaxal yu bari boo xam ne boo fa bëggoon a euh, dajale un million du mat tey ñu ne la na cent millions yu mat ziara baatin bi dina feeñ tey jii jërëjëf <laughs> olof njaay nag dafa ne bay ci sa weewu tànk ba tax na taxaw leen taxaw leen taxaw leen taxaw leen waa xaar leen xaar maa ngi ñëw taxaw leen xaar leen rek maa ngi ñëw mbir yi corxo corxo du ko defar te bëggewuñ ko nii itam déglu leen dama wax ni mbir yi corxo corxo du ko defar yéen yi nga bëgg yàqal seen bopp nag dégloo leen dégloo leen dama wax ni mbay si sa weewu tànk sama wayjur wu jigéen di Adja Daado Gueye joxe na ci cinq millions ay doomam ci góor ba ci jigéen joxe leen 5 millions muy 10 millions inchaa allahu bi hawlillahi wa quwatihi la 5 avril balaa moo ñëw dinañ ko yokkati tokk suñu loxo baay Mouhamad Ibrahim kon nag ñun taalibe yi kenn ku ci nekk la mu am na ko génne gàmm li ci des bareetut gàmm gi li des bareetut te ci tànt boobu lañ war a gàmm incha allah 10 million yooyu boo gisee ma wax ba ma waxee sama baay Mouhamed xam naa ñu bari nee dafa juum na magam Mouhamed la waroon a wax baax na baax na baax na yaakaar naa ne message bi jàll na mooy taalibe yi dégg ngeen te comprendre ngeen lan la alxaaji Abdoulaye Xalifa bëgg wax kii nag kii nag dafa niru turandoom ci dëggu taalibe yi dégg ngeen dafa niru turandoom ci comprendre ngeen lan la alxaaji Abdoulaye Xalifa bëgg a wax kii nag kii nag dafa niiru turandoom ci dëggu dafa niru turandoom ci jàmbaar keroog biñ bëggee yàpp ña turandoom moo taxaw génn kër gii joxe yàlla turandoo nag juróom-ñaari jikko la moom jël na ci turandoom juróom-ñaari jikko ndax jom ji mu wane tey ak détermination bii mu ci àndal ak fulla ji ak engagement bii mu jël yaakaar naa ne loolu doy na sëkk kuy dégg nga dégg lool li mu bëgg a wax daal ci simple mooy pesum kaaba borom moo koy fajal boppam ñun lew nañu seen lu maam xalifa amul soxlawuñ lool mbooloo mii fi daje ñu bari fooguñ ko won te tey li tax ñu dajee fii yàlla ak sëtam bii Cheikh Mouhamad Alhaaj Ibrahim wolof ne ku soxorul ne yàlla ak diw ci ndigalu baayam nag Mawlana Cheikh Ahmad tijaan yi borom jinne yi dafa waxoon ne suñu ziyaara bi ku ñu ko teree def dinaa la wanele ak jinne yi Cheikhu Tidiane yi ba mu ko waxee réew mi def ko ree ba àgg ci revue de presse man leen dee ngeen de wax ju jógee lew nañu seen ngeen revue de presse ko bu leen neexee dana am bu leen naqaree dana am mu yéen jinne yi gis ngeen koom gisu leen ko a ah, gouvernement bi dañ ne nee gis nañ jinne yi ñoom ndax nee nañ xale bu am 15 ans di daanee auto police ak di ubbi dem naan tiire leen nee nañ loolu mooy jinne ci ñoom ma na jinne de mooy loolu jommal rek te ñoom ñëpp ànd nañ wax na jommi nañu kon def leen ndànk ci law nañu seen la doon nag pour ngeen bañ ci agsi yéen gouvernement bi alaaji mu ndaw wax na ko léegi ngalla bu leen rëy fa ñu leen falee woon fii lañu leen falee woon ku fakk sa jubb nag ñu sa jubb nag ñu fakk la président Sall kero bi ngay ñëw fii way juru xal xaaj mu ndaw mii doon wax léegi di bind ci sa jabi bind sa ja léegi la yomb waaye keroog yombutoon ba mu ca bindee reconnaître nga ne loolu mooy li am waaye en yow dégguloo sax sox bi après da nga comprendre incha allah du ñu jàll foofu duñu fi sori dañuy yëkkati kàddu gi jox ko nag borom guddi gi